ay demal is xoolal ma nga ma laal rek bu ma la laalee léegi taxaw fi tap tapet bu bon bi nga naan xanaa nga ma laal rek eh, eh, eh. arrêté sëlmu ma ne nga ñu xam nga eh waaye yow kii xanaa yow laa ne arrêté mais wax xaw ma dégradé nga def xaw ma salli ma ni borosu jiin lii noo ko mënee sa nijaay bàyyi seetaan na la de waaye nag naa la ñaari mbir eh gannaaw ba noonu ne ci ay ne ay nag dafa am yoo xamante ne antam moom na nga yem ne fii suñu territoire la ndax may dégg te suñu territoire bii bu ma la fee gis muy demee ay neneen deme ne nga jàpp fa sëlmoo fa defee fu la neex mu neex sa sangul. yaa bàyyi góor yow ku waram noppi bay goro sa talakh talakh ñu nek ci kër gi di talakh lu melni la la mem nga wara ba bay goro may ñu jamm e eh, xol duñ sonna ah. may dafa sa jarjar nga may sa ci ni fi sama kër ni yaal fu mu neex lay dugg fu mu neex lay jaar tadu ya ma jofal sens ya na leer hmm. du ya ma jox sens interdit sa dara ni eh eh eh, eh kay ngene kay may ni arm armem taxawal xana xamoy yow demago manago dem ndax rew na nga rewtu nga da ngay ja eh eh buma ma waxee nga ton bu ma waxee nga tontu ma ñu sama eh, kër ndijaay laa ne laaw sa kër ndijaay ah waaw sa ndijaay dama koy fay weer wu dee après après après mu jox ma sama territoire moom ne ci territoire maanaam ba nekkatuñ ci jàmm fu mu toll nii yow wari sa territoire yow fii sama territoire ndijaay sa territoire ndijaay mu neex lay ya? jaar eh lenn nag naa la ko yëgal hmm. mooy jëlee say garde ndax na yoo xamante ne xale bu ndaw duma benn teg moom yaa ngi dégg gannaaw ba yar woo eh eh man man ku ne xa eh, ku ne xam na ma de man du ma baalu ma benn xale. eh ma ne baalu ma benn mag. ah baalu ma benn mag. baaloo benn mag baaloo benn mag. waaw waaw baaloo benn mag. waaw kay. na ma fee wóni ne de ah. barki dem lo nga woni na yow yow woni na woni way way man ah mo la man woni na yalla fa la yalla de man dama dama dama dama wuli mag de ah man jambar bëgg na eh, man boy daga na la de e cium affaire jox na mo yey ya, ga no ma de lu leer la lay mo ga wande mo wande ga na eh wan, da way xoram sa ngi sum bir bakkan bi ci def nga waaw waaw yeen ya, set ah, Tahu tahu lu ay. Kalau tu eh eh. Kalau tu eh eh. eh Mana kalau tu bandi lah. Assane Ndiaye laaj ko lii ñam na ko de da jàll wi dul wal may mel ne ñanam yéen lan ngay xam dex ngeen xam dem sangu ñëw après dem ci ndafa yàlla mu jeex fin eh circuler bàyyi fi nga jàpp te circuler ba eh waa xool ko daaw naa piccé naa doon piccé rek ay kay kay yox la yox la eh ay yëf yi daaw naa piccé daaw naa daw naa yërmande si loolu ko mooy mooy te ma def xaay ci kër ndax sa yaram mën naa tàng ma def lu ma war a def eh, man am na loo xamante ne mu waxee man xalaat mu ko de dara bu jógee gis naa for bool bu tax gisuma dara dara dara dara dara kon mu jëngaa daan fonde bi nii naa la ko benn affaire nag ma njëkk tey ne mujj tey may tegal samay fonde wala ruuj sax bu ko tege tey nga naan naa la génne kër dégg nga loo ah, euh, beneen bi si des mooy waa kër gi ñee du ma sax tudd seen tur foo leen romb tey bu leen nuyu hmm? waaw lu war a lu bu la leen xool bu la leen àbbati dara daal yaa ngi dégg eh. comme que dundee garsa garsa gasa gasa rek na kër gi jëm na rëb tàngoor ñu na kii daal bu leen leen may dara ñu xam nga bëriwul te ñu ñoo leen gën a ëpp kàr macha allah sàppal la yaa ngi bu leen leen may dara. nijaay ci weeru ramadan lañ nekk. <laughs> déglu ma ramadan nag sirro yëpp si bokk yam bu leen may jàmm laa. Ah. dégg mu baax. am problème yow li nga bëgg rek laay def incha allah. monsieur. Eh. yow li yàlla looy def nii. da nga sappu. waaw. mu jàpp ma. mu def a dàpp ma. dàpp ma. bay ko la. yow loo ko def. waaye yow yaram yàq na de. bay ko ma noonu. ah déedéet non non non non non non non non non waa di tudd Aïcha maa ngi dëkk Mbour voilà artiste comédien moment yëpp neex na daal parce que sentiruma ci benn yoon lu xaw a naka di yëpp dafa neex ci man voilà yëpp dafa neex ci maa ngi tudd Balla Moustapha Samb nekk euh, scénariste en même temps acteur comédien waaw mi ngi waaw Balla. waaw. gannaaw ba nga réalisé série bu mucc ay bu mel nii ñu lay laaj rek tey jii noo gisee série bi ak équipe technique bi ak say éléments say acteurs ak say actrices ndax gisee liggéey bi en grosso modo daal. waaw loolu. waaw euh, primo li may njëkk wax mooy metti na. ak euh, artistes comédiens yi nga xam ne dama leen di remercier di leen féliciter d'abord parce que ngay liggéey ak ay artistes yoo xam ne wax dëgg yàlla am na si ñoo xam ne yenn maase am si yoon ñoo xam ne bu ñu la magul tamit au moins euh, da ngeen di maase nga leen di wax def leen nii ñu nangul la ba bëgg de dee maa ngi leen di remercier di leen wax metti na wax dëgg fa yàlla di wax équipe technique bi euh, mention spéciale waaw sama gars yi ah maa lay wax euh, big respect ah yow daanaan nga macha allah di ziar ñëpp. di wax waa Lacrosse production. waaw ca kaw ca kanam gars yi ngeen xaaraat leneen bu ñu waree ba pare di ngeen gisaat yeneen bagage yeneen mbir ak Lacrosse euh, ak équipe bi ngeen gis nii incha allah. d'accord léegi Balla ñu bëggoon xam tey ci biir série bi yan moment ñoo la gën a marqué en tant que réalisateur ci biir série bi. waaw en tant que réalisateur li ma ci gën a marqué mooy euh, dañoo toog ñu war a am benn figurant bu war a def chef de cachet quoi ñu war a wax ne dafa war a def ay oustaz ak ñoom seen ak yooyu léegi may leen comme que kenn néew fi bàyyi ma def ko man léegi euh, ma def ko mais ndekete jeu métti na de <laughs> léegi léegi ci laa ko defee jouer ak euh, artistes yi mais c'était cool macha allah. maa ngi tudd docteur mohamadou Saliou Sow nekk ci district sanitaire bu kam bon di ñëw juste pour euh, jéem a waxtaan ak yéen pour expliquer leen euh, brossage bu normal nan lañ ko war a defee maanaam brossage bu jag li ko waral nag euh, prétexte bi mooy journée mondiale santé bucco-dentaire bi ñuy organiser ci district sanitaire kam bi. juste avant de commencer nos chef de service nous vais waxtaan ak population ak pour